il l'a fait tardivement. waaw il man sur Facebook ku xam-xam ni j'ai fait appel à lui par les mots douces j'ai grondé wax naa lu ne wax na ko maanaam façon bu ne wax nga ko mais moom bala moo wax rek euh, mu taar te loolu kenn du ko yore. mais yabaloon nañ suñu ministre de l'intérieur Antoine. et puis ñu yabal bari na sax ak président. Euh, Idrissa ko ñun ñun ñooñu soxlawul leen. <laughs> ñooñu ñun foog la de la république moom itam génn wax. waaw kooku kooku il a bien a bien parlé Euh, ABC. kàddoom dafa am lu muy valoir. gis nga nitu kàddu. nit ku yàgg ci appareil gouvernemental. bu waxee rek nga xam ko man mii sax damay waxi toj toj ndax yàgguma ci appareil gouvernemental. mais ABC yow da ngay waxi de yow toj toj kese ngay wax. waaw baax na ba tey ñi ngi may déglu. Euh, ki nga xamante ni mooy ABC. du def lu dul du ma def lu dul gërëm ko. gis nga bu njëkkoon a génn don bi changé. xam nga lu tax bu njëkkoon a génn doon bi changé c'est quelqu'un qui a le verbe facile mhm. il est éloquent éduqué discipliné correct parlant et puis la simplicité et tubaab di wax la simplicité se lit dans l'art xool ko chemise bi mu génne ñee ñëw di ma xojal ay veste yoo xamante bu ma ci gis rek ba man italien laa man veste laa xam man veste boo xamante ni sa veste nga sa karawaata nga weng dugg ci sa <laughs> côté nga def benn chemise ñu ñawale la ko kolobaan ah te doo ko jox sax ñi nga xamante ne ñoo ñoo ko ñoo ko war a ñëw coupeur yu mag yi tailleur yi mel ni moo Gueye héritage da koy jox ah ay ay da ngay ci fëgg jaay bi ñu paaseel la ko nga jox ko fii eh, day tàmbale ci Mame Diarra ay terroriste Mame Diarra ci loolu nga wax noonu dama la ci may héritage dala ci may bon cent cinquante mille zoom papi eh waa tam eh. héritage tam baax na eh, de zoom héritage tam mi ngi defar affaire bi de zoom lii cent cinquante mille bon bi jëlal li bon bu cent cinquante mille laa lay fëgg. dégg waaw héritage couture moo la ko may. costume bi na ko yóbbu foofu ñu koy ñawal. na koy ñëw koy yóbbu ñu koy ñawal. ci héritage Seck yóbbu sa costume bi ñu la koy ñawal. héritage yóbbu ci héritage. xam nga mam jaara nga ñëw taxaw. jërë boobu yaa yow def nga sa def nga sa mburoog soow. bu nu aaya bu nu xutba tàmm nañ ko yooyu namatuñ ko gis nga benn chanson bu yàggee. day xat ci yaramu nit ñi kenn dootu ko antan wala min kaana lay laay kaana laaw la xooba yooyu day danoo seesoon bu aayaat ndax yow aaya nañu aay moom aaya nañu sama xarit la nag président waaye aaya nga ñu banuñu sa sa gu benn signature dootul jóge ci benn nit bu yàlla bi ñëw ci réaction internet yi YouTube YouTube baa ngi wàcc moom ñu jox la ñu jox la conseil économique et social avec un euh, budget dévortivore nga ne ko caraxtee tey tey yaawul yi di dàq ñi nga dendaloon kee ñëw jiñ ñu ay terroriste xam nga nit da ngay sincère booy ànd ak moom mhm. je peux savoir je peux je peux concevoir quand Idriss Seck dit le président Idriss Seck dit à Sonko c'est mon jeune frère c'est vrai ils étaient autour de la table récemment bu ko fàtte 2019 ni nanguwuñu élection yi ñoom ñeent te toogoon mhm. ñun bokkuñu ca woon ay spectateurs lañu woon waaye ñoom ay xarit lan woon c'est son jeune frère mais man sama jeune frère duma ko wax ni ko kaay waat ñi defoo ma ndax yàlla dañuy del faral say mbokk donte dañoo tooñ waaye comme capp nga ci soow mi ñam ko mu saf suukar nga ne ko kaay waat waatu du waat ndax defu ko. ndax nana. Euh, nana kële nag moom ñëw ñu ñun ay terroriste lañ ñun ay terroriste lañ man j'ai une j'ai la figure d'une terroriste moi. yow yaa def terroriste eh, <laughs> ah, normal jël sama xeetu yow jël sama xeetu ba ci suuf xam ne sa terroriste la man ndax man terroriste laa man sénégalais amul terroriste fii ñu mer <laughs> gis nga gis nga keroog gis nga keroog gis nga keroog ba ñuy ba ñuy ba ñuy xeex 1549 <laughs> 1549 ba ñuy libéré Kajoor ak Bawol ay xale xeexi woon xale yooyu xeexi woon ñoo génn ci tali bii di xeex seen indépendance bàyyi leen ñu duñu ay terroriste kati mi ci réew mi boom leen nag boole ci ak miss ñu jóg dem waaw ngeen bool boom leen boole leen ci <laughs> xale bi Cheikh may may saluer la mémoire de Cheikh Wade xoolal ma xale boobu ak dàllam ya mu wàcc ca tali ba di ngeen ko fay jusqu'au dernier centime jusqu'au dernier goutte de sang versé dans ce pays sur vos man dama xamul ah fan la ñu mës bind ci àdduna préfet naan tiré dispersé même les journalistes j'étais ébahi muy wëgër wëgëri naan tiré même les journalistes <laughs> damay laaj ci man réew la nekk tiré tiré ku ko wax yaa tiré lu nit ñi il faut être responsable Euh, honorable hmm. bi loolu lépp amee coow li bëri ñëpp grève yi fii ñu libéré ko nag ne sous contrôle judiciaire loolu ngeen doon xaar wala nga ni ñu ñu libéré ko ne sous contrôle judiciaire la nekk loolu ngeen doon xaar xanaa yow da ngaa yaakaar ñu déggoo li ma la wax dama ne hmm. bii combat nii hmm. amu fee amu cooki fee xam nga cooki fee toujours boo ko dee seetaan film ko boy kuy mujj dee bande bi <laughs> bande baa ngi fii ci avenir moom rek la lu keneen <laughs> yaa ko wax nag de. <laughs> lii maa ko wax. ñëw ci réaction internet ma ñëw ci ñi nga xamante ne. gis nga kii dee cooki fee moom xali Khalifa Khalifa. Mm. aura ses droits. alors bii ñu dem ci Karim Wade dañ koy réclamer mu ñibbisi fii ci réew bàyyi ma fi dëkk may sa meeting mbay ngay ngay sàq Fatma Demba borom jam ñami ci ab Ablaye Wade day bàyyam dafa war a ñëw. bàyyi ko tranquillement mu ñëw cooki fin nag lañ lay xaar damay filaa ko cooki fin rek ah. acca ñu dem ci euh, réaction internautes yi ba tey Facebook d'abord parce que. Euh, ñu bëri est-ce que du ma wax ah, maa koy am. mi ngi mi jaajëf alors Ousseynou Mané pour moi ce n'est pas le fait d'utiliser ces genres d'images